rek lañu koy dem mm-hmm. vraiment maa ngi profité ci occasion bi wax Sénégalais yëpp mm-hmm. ñu sant naa ko mm-hmm. ku gis dernier production yi nga xam ne xam ne am na tuus bu ci doole boo xam ne ko woon te loolu yëpp liggéeyam la moo ñëw indi xam-xam indi scénario yi ba ci spectacle yi ñu def fii ci salle bi yëpp moom la kon loolu dama ngi profité ci sant ko ci bu baax a baax a baax baax mais moom daa na daa neex a dimbali de. waaw man ngaa jëndi defal ko lu garaaw. Mhm. woy wa jaar na leen moom moom moo ko dimbali waaye waaye ndox mi dimbali. <laughs> jaay ma Youssou Ndour gars yi quoi. <laughs> Ah, waaw waaw Youssou Ndour gars yi. macha allah moom bu ko neex a dimbali daal. mais ak cant rek gars yi. waaw waaw bu baax ma leen di ma leen di ma leen di waaw. ma leen di Thiès bi waa Thiès. waaw ma leen ma leen di mm-hmm. invité tamit. Mm-hmm. Euh, vendredi. waaw incha allah ma sañoon ngeen teew. incha allah ndax comme lu bees la. waaw loo xam ni ñu ngi soog a am. ndax ñu woykatu yàlla yi. Mm-hmm. li ñu xamee mooy di woy ci saal yi. c'est vrai waay yooyu. man nag yàlla dogal na mm-hmm. dama nekk nit bu xaw a sob mm-hmm. ndax mel na ni saal bii ñu ne. Mm-hmm. bokk naa ci ñi fi ñu ko ñëw woote fii. damay bëgg toujours nag samay mbir di demee. mais luñ ne rek woykatu diine sañu ko. ma dem def ko ngir wane ni woykatu diine woykatu leneen a am. wuute gi rek mooy. kii day woy àdduna yow ngay way <laughs> yàlla. fexeel ba li ngay woy nag muy yàlla. nga mën koo dugal ci bërëb bu dëppook ak ngay wax. ba ku fa mën a ñëw. Mhm. xam ne lii ngay wax dëppoon naag fi an ñëw. donc vendredi Thiès la. vendredi fii ok place de l'Obélisque la ah la ah, ok kon na leer. ok ok donc ban heure la. vingt une heures vingt et une heures mhm. ah, am na lekk. am na naan. Mhm. ba noppi macha allah. bërëb ba ku fa ñëw di nga xam ni bërëb bi mucc naa parce yi xam Mouhamed màggal gi ci màggal gi waaye suñu clip yëpp waaye donc yeneen yu bees yi gars yi parce que trois rek la gars yi jot a déglu de daw ci théâtre star nga mais doxee woo ko waxee woo comme nouvelle génération bi ni nga koy def waaw nga yow loo fi jaay jaay star boo rombee oto romb oto boobu loo fi jaay jaay star boo rombee mu gis si yow loo xamante soit moo lay gën a yaru lay ëpp xaalis ba pare gën laa yaru gën laa doon taali bi te ñun li ñuy jàng ba tey jii mosaa toog benn ministre yàggul ah, mun ma lan nga bëgg ma def ko man nga dama bëgg dem tàngi wax

oo ma ma ne. Ah. xaaral mu ne ma grand. Oh, loo na sa xel ak loo mébét wax ko maa ngi ci bërëbu sëñ bi ma dogal ko barke sëñ Saaliw. bilaay walaay kon kooku. du xaalis. mais loolu respect boobu ak yéeg-yéeg boobu moom. say produits say produits. woo. si. Batour Batour. sama non moom sama doom la. wala ah. kon an sa papa mais am na sax pour mu leen ko nii. Hmm. mooy am na série bu bees bu may def. man amoon na ko série bu tudd Garaawul. Mm-hmm. sa production la quoi mm. Sénégal sama Sénégal loo xam ne non garaawul garaawul. Mm-hmm. li nekk ci ginnaaw gën a garaaw. Mm-hmm. te série la boo xamante ni bu génnee. ci la ñuy gis pour man talent wu soxna Bator. Ah. barke Sëñ Sall. bu génnee ñu xam ni Bator joué gul woon parce que li ma ko joué loo fii dafa yéeme. parce que man ak moom dafa may wax papa bi dañoo ruusante. xam nga mais bi ñuy joué ndeysaan yaa ngi ko yàlla sama soxna dama ko njëkk woon épisode bi ñu def quoi ma ñëw mu ne ma Ibou rôle bi Baro waru ko def keneen nga ko war man ko tax mu ne ma daf la rus mbëggeel feeñu sa diggante ak moom. Mm. la lay ki ngay joué bëtu nobel la la war a xool lan la mm. sama jabar moom wax mm. ko xaar ma woo ko ma woo ko jox ko bëtër bëtër ne ko wax nga dëgg. sama papa dama ko rus ba mu joué ak moom yële diggante yi. waaw day am lu des mu ne ko eh sama jëkkër la joué ak moom. Aziz

ak cant yàlla mayoon yàlla mayoon. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, macha allah sa relation ak Mouhamed parce que fekk nañ leen. waaw studio yéen a ngi répété te gis nañ tamit yaa ngi sonn ci carrière mm-hmm. Mouhamed. kii sama rakk la sama xarit la. Euh, bi ñu tàmbali avant ñu mu yooyu nii pour ay flot. mooy dogal di ko rek ba mën a moom waaye. fii grand théâtre ñun chaque jour ñun ñëpp ñoo toog waxtaane ko. ñoom ñëpp nañu am ci man kóolute goo xamante ne soirée bu mu mën ci doon. Mm-hmm. directeur artistique defal li nga bëgg. ñoom dañu may wax rek ma taataan. ma pare juba. Mm-hmm. mosu ci dindi virgule. am na benn jour maa ngi fàttali ko soirée boo xamante ne yéen a béy waaye jii ma ne ma si ma ne bii laa bëgg yow ma ne ko doo ko joué. ñu ne bii moo ko mën ko def doo ko joué ñu ngi ko def ñu ngi koy def pour wala ni yaakaar na ci man. loo xamante ne lu ma ko wax rek te mi ngi koy dox. te di ma teral nag saa su loolu moom dama la koy wax. moom di ma teral saa su nekk. màggal Tuubaa bi yére moo sol brodé ba moom moo te lu mu am bokk quoi. muy nemmeeku. donc ak cant la. ak cant la donc nit ki nag mënoo may loolu sax xam-xam. te xam-xam bi am jànge ko. fii ak bitim réew. je pense que benn jour benn mag ma sama wax ni ma Sénégal yi use guñ la. loolu la je pense loolu la. use guñ la ci li nga jànge woon bitim réew ñoom indi ko fii. buñ ci mënee woon a astuut ak moom ak ñeneen ak suñuy wëlër duñ dem nag fenn fu ñu wooyee amuñ jot surtout ñu taxawal duñ tamaam mais kii daal bokk ci ñun mm-hmm. moom boobu fa sëñ ba linkoo moom bu ñu wowul suñu saal yi dañuy

on va le commencer la semaine prochaine fii euh, place de l'obélisque à ak Moustapha Diop donc je pense que ça va être un événement bu ñu chaque vendredi si tout se passe bien ak euh, Mohamed ak groupe bi machin donc loolu ngeen nekk di waajal nii kon mhm. en pleine répétition dañuy dañuy répéter léegi ñu avant final ok euh, Mohamed dégg nga li nga xamné ne moom mooy sopp Sénégal ñepp ko bëgg macha allah ci yar bi ci té bi mais aussi ci liggéeyam euh, yow tamit aussi fekk la du guléet ñu lay fekk ngay def sa répétition ndax dëgg artiste mom ci yow la fekk baax d'abord maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ci yaatu wér Ibrahima nag moom moom daa baax rek di wax waaye sama diggante moom léegi jéggi na mbirum liggéey. Mm-hmm. léegi mbirum famille la. Mm-hmm. ndax ci leneen ak leneen lu bokk ak lii. Mm-hmm. te loolu lépp li ko waral mooy liggéey bi nga xam ne Serigne Saliou jox nañu ko. ñu di ko doxal ba tey ku ne mën ci gis sa bopp mm. ba ñëw ci def sa touche mm. loolu nag day wane université universalité bi sëriñ bi doon mm. moom nag mu nekk nit koo xam ni wax na ko léegi xam-xam rek la xam-xam boobu nag damay ñaan sénégalais yi gën koo gëstu comme ni nga ko waxee ndax ñëpp xam nañ ko ci domaine bi mu nekk mais xam na ni domaine bi muy def am mooy def bopp te bu ñëwee li mu xam-xam bi mu am ci domaine bi mu nekk moom lay ñëw indi ci domaine bi mu nekk mm-hmm. te dara du ci changé mm-hmm. Mm-hmm. loolu nag euh, message la boo xam ni keneen ak keneen ak fu mu mën a ne bu déggee message bi war na war naa jege Ibrahima parce que xeetu nit yu mel nii suñu borom da leen fee wàcce ngir ñu jariñ dama koy wax toujours njariñ la njariñ lu àndut ak lor la mooy dina liggéey ak yow foo ko woo lu mu sori sori sori

ajuma bi. ba waaw chaque aj toujours la ajuma. waaw chaque vendredi ña nga fa. fan mooy restaurant Cool. restaurant. Cool moo nekk ci place de l'Obélisque. ci biir monument bi. waaw waaw waaw. mooy fu taaru bërëb yu taaru yooyu rek. mais mais mais mu xam nan nga xalaatee idée bi tamit parce que wax nga dëgg dara amu fi si diine. dara amu fi. xam nga loolu bariwul. waaw ñu koy def waaw. lu muy am. Mhm. Mhm. tàmbale woon nañ ko ay jamono. ba mhm. ci théâtre bi. ci almati. Good. <laughs> <laughs> xam nga xam nga dëgg nga ah wérul waaw voilà mais est-ce que xam nga ni wérul artistes yi dañoo baa doon rek mais artistes yi am dara yëpp si loxoom lañ jaar barki Rasulullah sobe artistes yi si boppam barki Rasulullah ah